asalaamaaleykum mbokk yi tey la di biir ñaar fukki fan ak benn ci muharram muy weeru tamxarit di weer bi njëkk ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak ñaar fukk ak ñeent ñaar fukki fan benn dafa bokk ci lim yu fàtt yi kon tey ci di biir ji rafetul ñaanu bés bi yow yàlla mi aji wëlbati xol yi yàlla na nga wëlbati suñuy xol jëmee ko sag topp allahuma musarrif al qulubi sarrif qulubana ala taatik allahuma musarrif al qulubi sarrif qulubana ala taatik xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ragal leen yàlla te ngeen maandu ci seen diggante njaboot xadiis bi buxaari netteel na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ittaqullaha wa adilu bayna awlaadikum rawahu buxaari